Efes benn. wàll ci linjiil di bataaxal bi yàlla may pool mu bind ko waa efes man pool ndawul kirist yeesu ci coobareeg yàlla maa leen di bind yéen gaay yàlla yu sell yi te gëm kirist yeesu ci dëkku efes na leen yàlla sunu baay ak boroom bi yeesu kirist may yiw ak jàmm cant ñeel na yàlla bàyyi sunu boroom yeesu kirist mi nu sotti ci sunu bokk ci kirist lépp luy barkeel ci baatin te nekk ca barab yu kawe ya ndaxte ba àddina sosoogul tànn nañu ci kirist ngir nu mën a teew fa kanamam sell te ñàkk sikk ci kaw mbëggeelam seddoon nañu lu jiitu def nu ay doomam jaarale ko ci yéesu kirist ndaxte looloo doon yéene ju rafet ji mu tëral ci coobareem na ndamam jolli ndax yiw wu réy wi mu nu sotti ci soppeem bi moom jot nañu ak deretam ji ñu tuur maanaam baal nu sunuy bàkkaar ci kaw yiw yaatu wi mënu baawaanal te yàlla sol nañu xel mu mat ak dégg ci feeñal nu mbooti coobareem dëppook yéeneem ju rafet ji mu jaarale ci kirist mu tëral ne bu jamono yi weyee ba lépp mat dina dajale lépp ci kilifteefu kirist muy ci kaw muy ci suuf te am nanu cër ci moom bi nuy yàlla sedd lu jiitu ci dogalam moom mi doxal lépp ci ni mu koy àttee ci coobareem noonu nuy jollil ndamam nu ñu jëkk a wekk suñu yaakaar ci kirist te yéen itam bi ngeen déggee kàddu dëgg gi di xabaar bu baax bi leen tegtal yoonu mucc te ngeen gëm ko yàlla tàmpe na leen ni ñoñam ak xel mu sell mi mu dige woon te xel mi mooy dawal gi nu yàlla jox ci cër bi mu nu dencal ba kere muy goreel ñi mu jotal boppam te ñépp jollil ndamam bi ma déggee nag seen ngëm ci borom bi yeesu ak seen mbëggeel ci gaay yàlla yu sell yépp duma ma sant yàlla di leen boole ci samay ñaan te li may ñaan yàllaay sunu boroom yéesu kirist di baay bi yelloo ndam mooy lii mu sol leen xel mu xóot te xamal leen boppam ci leeral seeni xol noonu dingeen xam yaakaaru ëllëg ji leen yàlla wooye di ndam lu xel mënta daj li nekk ci cër bi mu dencal gaayam yu sell yi ngeen xamit ni kàttana màgge ba jéggi dayo jëm ci nun ñi gëm dëppook dooleem ju ràññeeku ji mu jëfe ci kirist ci li mu ko dekkal dëwal ko ci ndejooram ca barab yu kawe ya mu tiim lu sori malaaka yépp muy kilifa boroom sañsañ sañ boroom doole mbaa buur te gën a màgg wépp tur wu ñu mën a tudd muy tey muy ëllëg yàlla suufeel na lépp fi kanamam def ko kilifaak lépp ci mbooloom ñi gëm mi jëmam di matu kirist mi fees mbindeef mu ne ci fànn gu ne